salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp te xam ne wax ji lu gàtt rek lay doon li ko li ko waral nag mooy mbir moo xam ne dafa dal ci kaw yoonu Baay Faal biñ toogee sax di di di xaar di leen di yéen am na lu am na benn xibaar bu ñu dab mu ni sëriñ Bass doon def benn déclaration. di wax ci wàllum ay euh, wax jëf ju ñaaw yoo xam dañ ko jël teg ko ci kaw kilifa gu mag yi muy Serigne Touba loolu ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax te xam ne lu mel nii su amee waxuma yoonu murid waaye état ci boppam moo war a jóg euh, jël ay responsabilité am ndax yii mën naa indi sax guerre civile ci am réew waaw euh, bi ci des nag mooy bii nga xam ne moo ñu fi dajale muy waa daayira jës murid bi ñi nga gis muy sëtaati maam Cheikh Ibrahima Fall. li leen fi dajale mooy dafa am genn genn waay joo xam ni day wuyoo turu Saliou Sow di ab conférencier kooku dafa am wax yu juunu yu mu wax ci Cheikh Ibra yoo xam ni dëppa wut la Cheikh Ibra Fall daa dund dëppa wut ki fi nekkal Cheikh Ibra li muy dund ndax tey jii bu Cheikh Ibra woon siège bi suñ ginnaaw ci lay toog te defe naa ni kon kenn kenn koy wax ci Cheikh Ibra war nga mën a tegtalu jëmm ji suñ ginnaaw mu suñ Cheikh jëmb li ñu fi dajale nag ñun ñun ñii xam ne ñooy daayira ci jësbul jësbul murit di sëtaati Cheikh Ibrahima faal mooy Saliou Sow wax wax kàddu yu ñaaw yooyu mu teg ci Cheikh Ibra wax ni Cheikh Ibra da laa def te loolu juwee naag njàngalem Cheikh Ibra loolu moo tax ñu daje fi ngir di ñaawlu loolu ndax loolu bi ñu amee ma ne woo naa ko téléphone wuyuwul ma envoyé ko message ci Viber bi xamal ni ko sëñ Cheikh Jëmb Fall moo lay woo ngir daa am kàddu yoo wax waaye loolu lépp taxul déglu na message waaye tontuwul kon ñi ngi koy xamal ne kàddu yooyu muy yëkkati di ko teg ci Cheikh la loolu na ko teg ci suuf yëmul ci moom ndax ko yaxisakumullahu an ta'udu li mislihi abadan moom kuntum niin loolu bañ jëlee ay ñaawteef teg ko ci na sayyidatina sa yàlla waxoon na ko ña doon jëfal jëflanteeg moom kon loolu ñu ngi koy wax ñëpp yëmaliñ ko ci moom rek maytuñ maytuñ kenn ñun ñii nga xam ne ñooy sidaati Cheikh Ibra Fall yi maytuñ kenn ku taxaw ci rajo wala ngay filmer wala ngay wane dara ci Facebook bi di wax naan Cheikh Ibra Fall noonu la doon dundee dundewu ko Cheikh Ibra ni mu doon dundee képp ku ko bëgg a xam da ñëw ci ñiy doon ay Baye ndax moom jëmu jooju ñuy wax Saliou Sow defe naa ni kañ ko tuddee muy maam Ngoné Niang sax am na lu ñu tudd lu ñu sédd ci tur waaye bu dutoon loolu kon dana gën a demee neneen waaw ñu ngi koy wax mu téye kàddoom téye làmmiñam ci Cheikh Ibra ak mboolem képp koo xam ne mel nga ni moom di taxaw ci ab télévision di yor ay saak ñu naan ñu naan la Baay Faal nga ngay tuddoon nga naan ngay tuddoo Baay Faal ñu naan la góor jigéen ngay tuddoo Baay Faal naan man Baay Faal la loolu tegul fenn tegul fenn du loo du loo xam ni kenn war na koo yëkkati ko teg deru Cheikh Ibra waaw Cheikh Ibra neex mën ngaa bokk ci moom waaye ci ak jikko ju rafet waaye taxaw sol lu bon loo xam si nii da natt sëb cër raw wodd ba pare rafle naa man maay ab Baay loolu tegul fenn loolu sëñ bi mayu ko kenn ñun ñii nag. dara boolewuñu dul loolu waaw ku mel ni Saliou Sow moomu lii ab tàmbali la ci loolu rek waaye du caagee ni ñu ngi koy xaar ci leneen nañu xaar ci leneen boog moom lii du caagee ni fii la ñuy yem waaw loolu nag ci tur daayira bi laa ko wax kii mooy mooy mooy mooy mooy président bi di sëñ Modou Fall daayiratu Jësul Murit mi nga xam ne moo lëkkalee sëtaati Cheikh Ibrahima Fall waaw bu kenn dégg suñu kàddu nag ba tax nga naan ñooñu waxuñ ci turu sëñ bi ndax su fekkoon duñu wax turu sëñ bi duñ toog ba fi ñëw fii ci saalu sëñ bi wala ci am mbaaram di fi waxee li ñuy wax ci turu sëñ bi lañ koy wax ndigalam lañ ci am waaw yoon wi ñu ne wala yoon wépp woo xam ni ku baax fent na ko ci yoon wi ci ci àdduna bi ñu ne su fekkoon lu wax bu faatuma jën mu deñ kon dara du àgg fenn waaw topp waxi wala jëfi gaa yu baax yi wala ku ne nga topp la sa maam ne woon loolu defe naa ni euh, euh, bu ko ñëpp defee jàmm dana am ci réew mi waaw sëñ bi mi ngi koy tere ñun ñi ñu ñu ngi jóg di ci wax ci turam waaw moytuñ kenn kuy taxaw di wax dara ci Cheikh Ibrahima rawat na jëm jooy nga xam ne mooy Saliou Sow su fekkee Cheikh Ibrahima Fall doyu ko moom na ko bàyyi te seeti leneen waaye bu mu waxati dem fenn di filmer dem ci ay daaru tëneeful naan dëkk bi Cheikh Ibrahima ko sañceeg moo defoon nangam loolu moytuñ ko ko moytuñ ko kenn ku mel ni moom loolu moom na ko ñëpp xam waaw ci turu daayira bi laa ko wax nag su daal di Cheikh Ibrahima yi ma ne lii ab tàmbali la ci loolu waaye waaye waaye du du du du du ñi ngi gën a jëm ca kanam waaw ñoo nga gën a jëm ca kanam ngir xeex loolu moytuñ ko kenn rawatina Saliou Sow mii nag xam nañ fa ne xam mu dëkk moo nañ faa dem waaye dañuy bañ am lu ñu bañ kon loolu ñu bañ nag nañu ko ñëpp bañ le loolu na ko ñëpp xam waaw fotkat yi nga xam dañu ne dañu ne ci télé bi raste bopp wala ñuy ñuy tuddoo Baye Fall loolu moom na dakk tey mayuñ ko kenn kum neex nag Cheikh Ibrahima nag moom kum neex mën nga sopp kum neex mën ngaa dugg ci moom waaye ak jikko waaye taxaw sol lu bon naan man ab bu waxee nga ne Baye Fall la xam nga ne saak ñu lay jiiñ jigéen nga man Baye Fall loolu loolu dafa tege fenn loolu tegul fenn loolu kenn andu ci waaw te mayuñ ko kenn ku ko defeti ku ko ku ko defati bu yeboo nga bu yeboo nga xam nga waaj te xam ne daayira biir jës mu danañ jóg te mu jógee ci sa kaw lañ jëm si waaw loolu na ko ñëpp xam. loolu laa doon wax ci turu daayira bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu